yonent bi sallallahu alayhi wa nee na ëllëg yowmal qiyaam amul kenn ci nit ñi ak ci jinne yi lu dul yàlla subhaanahu wa taala dina jàkkaarloog moom wax ak moom lijjanti ay mbiram te nee na kenn ko leen di interpréter du fa ne koo xam ne da ngay wax mu jottali la amul koo xam ne moo lay plaideel amu fa moo tax toujours dinaa leen wax ne leen am na yoo xam ne ay léeboon ak léppoon la fii rek ci senegal wala fii ci suñu yi rek kenn ku nekk teg sa scénario boo xam ne ëllëg sa bos yow noonu lay demee damay ñëw yàlla dama kii su ko defee sëñ jiw moom may plaidel sëñ jiw moo may xëcc ah ñun bu ñëwee ñun amuñu problème ci ginnaawam la ñuy nekk rek moom mooy xoos fu mu jàll ñu jàll fa yooyu ay léeboon ak lippoonam fii la de fii la yem fii di fii dong la yem ku la mënta lijjantil ab paqus fii ci sa eh, fii ci eh, àdduna mën la koo lijjantil yow mal koo xam ni da ne mooy sa sëriñ moom nga yaakaar àdduna ak àllaaxira police di nga daw laa mënu laa xettali mën na laa xettali rek yow ma xeex yeesaa nit dara def dara ngir sëriñam sax la tax mu def loola ba police di ko seet boo ma di pour wane bëgg bëggub sëriñam moom ak fonk sëriñam police di ko war mu dem làqatu sëriñ ba mënu ca dara te bu demoon kër sëriñ ba sax bu ñu jàppaale sëriñ ba yóbbu ki la mënta xettali fii ci àdduna àllaaxira taxatul ñuy wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na laysa baynahu baynahu tarjumaan amul kenn ku ne ci diggante bi ku koy ku koy fekk yàlla wax na ko ci suratu Maryam in kullu man fi samawati wal ardi illa aati rrahmani abadan Sénégal xam nga lu tax ñoom problème bi Sénégal ñun dañuy judd ci lislaam dañ ciy judd ci tur ci ndey ci baay mais duñ ko jàng de moo tax yenn saa même texte yi boo koy dégg maanaam yow daf lay jaaxal tam nga ne avant ñu daal dañuy déngat fekk wax yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam li ko waral mooy nit ñi judd nañ ci lislaam mais jàngalul leen lislaam da ngay gis koo xam te mën na taxaw ma ne ma ne man nagal ma xalaat jataayu lislaam yi ma dem ci weer bi mën na ne dem naa ci fukki jataayu lislaam mais jataayu lislaam yooyu yëpp booy xool bu ca nekkee kenn du ko wax lislaam baayu diw maamu diw bàjjanu diw santub diw maam ci diw rek lan koy wax ba mu naawee ci jaww ja ba mu maqee xal ya ba mu nànga maanaam yooyu du ci jëlal lenn ci loo xam ni àtteb lislaam la dina dem ba nga xam ni yeesaa nit ki li muy xam ci nit ki mooy ëpp li muy xam ci yàlla mooy xam moo ëpp sax li muy xam ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ëpp sax li muy xam ci sahabatul ñu yare moo tax nit ñi la ñuy gën a gëm la ñuy gën a fonk sax yeesaa ci yàllaa ko bi yonentam gis nga ba ma taxawoon fii yeesaa di joxe misaal ci Aboubacar wala di joxe misaal ci Omar wala di demee noonu naan masalan tey jëlal rek loo xam ni sax tey nit ku nekk ku ma wax Omar ibn Khattab euh, sikkimam bi ah moom dafa nekkoon sikkim buy rëy buy yaatu wala nàngam du am problème waaye ba ne woon sëñ jiw sikkimam bi rek nga gis koo xam ni boo moytul loolu donc du ko mën a du ko mën a accepter loolu rek du ko mën a du ko mën a accepter lii waral mooy dañ leen di yëkkati yëkkati ba teg leen fu fu raw borom bi subhaanahu wa taala moo tax euh, benn waaye di wax ni Sénégal bëgg nañ diine mais dañ leen a dañ leen a trahir ci diine maanaam dañ leen a jàngalul diine mais bëgg nañ ko lool di ci génne seen xaalis suba ak ngoon yéen sax attañ sa joxe sa bakkan gis naa benn vidéo waa ji euh, xawma yi benn xew-xew la ci xew-xew yi am fii ci Sénégal waa ji dama fa yore micro trottoir du ñàkk ni ci yéen am na ñoo ko kii mais di laaj yu terre à ci lislaam am na ci boo xam ne noo nu ngeen di sangoo farata la leen di laaj sangu farata te ñooñu ña ngay sonn ci xidmaal seen moroomu nit boo xam ne jàpp nañ ni maanaam mooy defar seen mbir àdduna ak àllaaxira kenn ku nekk yaa ngi wax ba ñàkk mënoo fexe ba lijjanti nooy sangoo farata